mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fii si madinatu Touba di dëkku leer di dëkku barke waaye itam di dëkku xam-xam ndax ki ko sanc xam-xam yi rek moom moo ko loon muy suñu maam Cheikh Ahmadul Khadim radiallahu taala anhu ginnaaw ba ñu ziyaare xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp radiallahu taala anhu ñu ngi fii tey ci Madiana jàkkaarloo ak koo xamante nii wéyjuur la si ñun sëriñ la soppe la waaye itam nekk koo xamante ni kenn dootu ko présenté kooku moo di sëñ Abdou Samad moom sëñ Chouaïbou radiallahu taala anhu fas yéene waxtaan ak moom rek lu jëm si li nga xam ne incha allahu taala moom la ñu fas yéenoo delloo fi si Touba di complexe bi nga xamante nii sëñ Mountakha moom la yàlla dogal mu jaar si loxoom muy bërëbu sàkku xam-xam boo xamante ni tey àddina bi yëpp bëgg nañ si te képp ku bëgg lislaam ak xam-xam xam nga ne tey lislaam amati ndam fii si dëkku Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di Touba. sëñ Abdou Samad gannaaw bañ la nuyoo Mbàkke ziar la ñaanal ya yàlla gudd fan ak wér eh, ñu bëggoon am rek Mbàkke say kàddu ci liggéey bu mag bi nga xamante ni sëñ sumboon na ko ba fekk ay fan incha ñu fa dalloo ngay kilifa si dëkk bi ak si yoon yi bismillah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ustaz san ñu ngi lay delloo nuyu bu baax di nuyu réew mi yëpp ak jullit yi nekk bitim réew ak senegal yi nekk bitim réew di leen balu àq di bég lool. tey ndamu tey sant ci ubbite gii ñu nar a ubbi jàngukaay bu mag bii di université de Touba boobu Khadim Cheikh Ahmadoul Khadim mu mel ne Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa mottali ndax Cheikh Abdoul Ahad moo ko tàmbali woon kon mooy mubaarakul ibtidaay waaye eh, waxoon na ne tàmbali naa ko nag waaye dana yeexu yoon kon dana yeexu yoonam boobee dafa jàppoon ne suñ ci loxol suñ Muntaxa lay mottali ko kon junj boobee la woon kon da tàmbali muy tàmbali bu barkeel bàyyil ko ko fi waaye mu jaar ci loxo yi ku fi mas a jaar rek def ci lam ca war a def waaye ndeke mujj gi ci moom lay sottee kon mu may moonul intihaay kon nag bokk na ci tawfeex si Muntaxa àggee li liggéeyu nesari sëriñ Tuubaa ji te mooy daara ji daara ji nag dafa fekk ne sëriñ bi moom xam-xam ak liggéey ak jaamu yàlla ñetti yooyu dañ ñaan yoon wi bu doon togg gu ñuy togg ñetti wasi cin yii la ko togge <laughs> li li mu war a yàkkal jullit ñi ak murid ñu jariñoo ko wasi wasi cin lim ko teg ba mën a sotti mooy xam-xam jaamu yàlla ak liggéey ndax boo ja boo amut xam-xam doo mën a jaamu yàlla doo ko mën a rafetal sa digg nit ñi doo xam ni nga war a jëflante ak waaye boo amut xam-xam it doo xam sa bopp doo xam li la doo xam sax say àq dëkkandoo waaye boo nanguwuti liggéey it loo am am xam-xam doo man a jaamu yàlla ndax doo mën a sàmm sa ko moo tax sëriñ bi loolu mooy yoon bi tax na nu am feex ci moom ci mboolem ay dénkaaneem mënoo cee dox tuuti te gisoo mu ñaaxe bu baax ci xam-xam ci wesar yi ci dénkaan yi ci way ci lépp loolu muy wax ne képp ku dox seen digg xam-xam da ngeen jàpp ne mooy représentant Iblis ci kaw suuf ko naan la xam-xam moom nanga ak di la ko falal jàppale Iblisa roofu ca moom ngir mu wax la ko waaye jógewut sëñ bi jógewut ci ñim yar jógewut ci fi bàyyi ci njaboot ñoom ca xam-xam la ñuy dund lu ñuy def ca xam-xam lañ koy teg loolu nag dafa bokkoon ci nisari sëriñ bi ndax maintenant buñ dee wax ay mébétam mooy jumaay Tuubaa ak daara joo xam ne li jege Sénégal lépp réew yëpp duñ jéggaanee te xam-xam feneen fii rek lañ yem. loolu waajaloon na ko ba wuti woon na téere yi nga xam ne booba téere jafe na waaye wuti woon na téere yi nga xam ne bu daara ji noppee ci lañ war a jànge kon maktab bu ama am bu rëy a boo xam ne fees na dell ak i téere ngir waajal loolu bàyyi woon ko xel lool kon nag Serigne Touba du fi jóg Serigne Touba ma ko santaane woon Serigne Touba àggale na ko ci zaahir ak ci baatin ba tey jii ñëwaat ko ubbi. bu doon ndamul yoonu murit di ndamul julit yëpp it ndax defuñu ko ngir ne ab murit rek fiy jàng walla ku sant nanga ma fi jàng ab jullit moo fi jàng ngir xam diineem ab jullit jullit yëpp la ko ubbi kon nañ xam ne daaree jullit yëpp la fooy mën a ne te bëgg a jàng bëgg xam ubbil nañ la ko mën ngaa ñëw ci condition yi yomb njàngin wu sell wu baax te dëppale koog njàngin wi nga xam ne moo dëppoog liñ naan sëriñ bi moom tarixam tarixa wasatiya la dafa digg doomu waaye itam dafa def ko teg ci xam-xam. al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabul mardi <laughs> université bi université boo ko boolee mooy ñett yi kon ku fa jànge da am xam-xam bu am njëriñ ndax xam-xam dana am ko jànge xam-xam defe ne am xam-xam la am waaye xam-xam day mujj lor ko ndax luy la cay jàng benn mu lor boppam mbaa mu lor moroom moo tax sëñ bi àll mën naa fi fii na xam-xam bi ñu fiy jàngi boo am am njëriñ la ànd ak teggin yi gërëm ànd ak di jëf yiw ñaan yàlla rek euh, li nekk suñu kanam yàlla may ñu fekkee ko te itam te tal ko yow itam yàlla guddal sa fan bàyyi la fi lool ni ma ko waxee sànq rek suñu wayjur nga suñu kilifa nga suñu soppe nga suñu suñu sëriñ nga suñu xarit nga macha allah waa di la ñaanal yàlla guddal sa fan macha allah jërëjëf Mbacke.